tënk xabaar yi amatina solo na muy amee solo saa su ne oustaz Maodo Faye maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee di kontaanati lool lool lool ci euh, sama janoo ak yow euh, allo allo ici la planète Mars bonjour la planète Terre comment ça va chez vous. maa ngi lay déglu di la nuyu ñun de ñu ngi ci kaw suuf si ñun demaguñu Mars. waaw bilaay walaay man de maa ngi ca Mars. di leen nuyu yéen waa planète Terre di leen nemmeeku di xool seen wér gu yaram ak naka ngeen dundee yéen waa planète jamono yi ñu ne. waaw ah man de waaw planète de moom boo boo ko waxee man day ci laa ne. waaw kon nag asalaamaaleykum man la maaleykum salaam. waaw la ko wax kon nag jàmm na ñooy. waaw des leen seen planète terre googee. Ah, te bàyyi ñoog sunu planète Mars. seen planète ndax dégg nañ a ngi bëgg a jóge planète terre bëgg a ñëw fekk si ci planète Mars te loolu mënta ne. da ngaa wax léegi benn faute ci wolof moom laa lay corriger. mooy man. des leen ci seen planète terre boobee waaye pas googee. googee <laughs> boobee de boobee de laa fi wax tamit euh, oustaz. <laughs> Ah, tey wolof moom say wolof daal wolofi tubaab rek. waa léegi des leen seen planète terre nga ne. boobee boobee. ok te banoog sunu planète Mars. gii. waaw mais marché nit du fa dëkk. waaw léegi man nag dëkk naa fa. ay léegi yéen toog leen seen place lan ngeen di lijjanti lan moo nekk marché ndax ma nit mën na faa dund ndax nit mën na ah, faa dëkk yow xanaa extraterrestre nga léegi. ba ba ba Amim ba ba leen ma noonu rek. ah. mais parce que loolu américain yi koy wax ah. ñoom ak scientifique yi nee nañ mars peut être amoon na ndox mu fa ah, nekkoon. bon léegi ñu ngi yónni ay ay xarala foofu. Euh, tàng na gaa parce que atmosphère bi nu mu tëddee. mais il se noonu loolu la baaxee. ah ay c'est pour que d'ailleurs ñu fexe ba trouver fa vie ñoom daal xam nga tubaab bi moom loolu la ñuy xalaat ah, waaye nag loolu yàlla wax na ko nag waaw lu mu wax loolu mu loolu tubaab yi def di def ah. ay recherche yi ci kaw waaw waaw mu ne di dem ci akataar yi yàlla ko wax ci suuratu rahmaan borom lu mu wax dafa wax ne auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa maxsara al jinni wal insi in istataatum an tanfusu min aqtaari samawati wal ard fanfusu la tanfusuuna illa bi sultaanin fa bi ayi alaa i rabbikuma ma nga ca ma nga ca suuratu rahman waaw yàlla nee na ku mën a doon ci ñi ma bind waaw te am xel bu ngeen bëggee def in istata'tum an tanfusu min aqtaari samawati wal ardi su ngeen amee kattanu def ay découverte ay recherche ci ci astre yi ci aqtaaru samawat yi nee na dem leen def leen libéré nanu waaye nag mujj gi ci loxo yàlla ndax mënuñu découvrir lenn lu yàlla àndul laa tanfusuuna illa bi sultaan donc kon kon kon kon yàlla moom bëgg na nit ki di réfléchir di dem di def comme ni tubaab yi def. waaw. kon je suis sur la bonne voie. oui waaw tey moom tey moom wax dëgg yàlla. <laughs> macha allah <laughs> yaa ngi ci yoon wi il faut faire des et d'ailleurs même alxuraan ci boppam. dafa yàlla dafa bëgg. Hmm. ñuy xool sunu xel yi di ko jëfandikoo. Hmm. di mais science dafa xam nga alxuraan. Hmm. gis nga su julli ni mu foore. sooratu julli amul ci alxuraan. ah sóoratu julli. waaw sóoratu salaat. waaw <laughs> amu ci. Ah. te gis moo tax yàlla. alxuraan dafa nekk benn système. Hmm. système la boo xam ne bii. Hmm. dafa war a dem ci nit ñi fi ñu toll. ñu ci ñu dundin la. Hmm. dundin la parce que science mi ngi ci. Euh, wàllu astrologie astronomie euh, astri comme li ma doon wax léegi mi ngi ci. moom la ñu tuddee almul Hmm. Euh, astre yi nekk ci kaw ni ñu tegaloo mooy moom lañ wàllu horoscope yooyu ngeen di wax kenn ku nekk ak sa biddiw naan tóoro waaw almu yooyu xeet yooyu verseau waaw yooyu yooyu alxuraan yooyu alxuraan wax na ci ah. ah ci waxin bi gën a rafet bi gën a baax alxuraan wax na ci wax na ci wàllu santé wàllu tibb hmm. ah ay ay wax na ci wàllu yamb yamb yii di naaw nga hmm. xam ne yàlla du ko attribuer benn saaru alxuraan wax na yamb bi li muy génnee saafaraa ngi ci yàlla doyu loolu yàlla ne alxuraan sax saafara laa leen ci defal faf est-ce que ah d'ailleurs wax na ci wàllu nature bi wax na ci jaww ji wax bàyyi maa farat naa fil kitaab min shay'in amul lenn loo xam ne yàlla bàyyi na ko léegi nag nun nun nun jullit yi ñoo ñoo ñoo xaw a arrière hmm. dellu gannaaw ba or bi ñu yàlla jox muy alxuraan ñu waroon ko mën a exploiter sur tous les plans xam nga ñun lu ñu ci ama barkeelu ak jàng ak tari pare eh, pare nañ ci nga ne le saint coran. oui liñ ci war a mën a exploité. dafa bari ci wàllu xam-xam dafa bari lool lool lool. àddina du dem baraw ko. waaw waaw waaw léegi nag ñun au lieu ñu dugg ci côté boobu. Hmm. ñun léegi ca barkeelu ba rek lañ ne. diw mokkal na ko tari na ko wasalaam. point firi ko def na tafsir bi point mais il faut que ñu xool def ay études paralléliques. comparaison par exemple. Hmm. lii est-ce que nii bu ñu tollee fii est-ce que bu ñu defoon lii est-ce que bu ñu defoon lii. Ah, euh, ak bu euh, li nga xam ne lépp wax nañu ko ci euh, bu ñu ko méngaleeg jamono ji ñuy dund. waaw waaw ah, lan lañ ci waxoon. Ah, boobee ba laata ñuy agsi sax ci jamono bi ñun ñuy dund ak ak yu ni mais parce que alxuraan xam nga alxuraan dafa nekk benn benn bu doon bu ma ko tuddoon benn dustuur benn constitution boo xam ne. Hmm. lu ne mën nañ ko cee mooñ ci àddina trouver ci solution. lu ne hmm. léegi nag immense sax xam-xam yegg ca. wala sa xam-xam mel na sama bos bañ caa yegg hmm. waaye bu fekkente ne rek dañ ko doon exp parce que sax yàlla wax nañu ko sax gis nga te dabbur hmm. xam nga te dabbur mooy lan hmm. mooy nga yore benn affaire di ko xoolaat di ko càmbaraat gauche droite afalaa yatadabbaruuna alquran wala boog seen xol yi yàlla da koo tëj gis nga tadabbur boobu yëngu rek ci ci ci aar yi de jaamu gi déedéet mhm. yàlla dafa bëgg ñuy utiliser suñu lu xama lëbal suñu maan yi xam ah, suñu maan waaw waaw suñu ah. xel yi del use sa brain mm. ko defee da ngay xam lu mais affaire médecine yi ñuy def nii feebar eh, yi ñuy faj nii mm. mais alxuraan mi ngi ci nun ñoo ko xamul rek loolu loo gis lu ne mm. sunu borom dëxëñ na ko ci téere bi mais malheureusement. Mm. Euh, recherche yooyu tubaab yi nangu nañ ko ci nun mm. gis nga boo de gisee ci histoire arab yi bu yàgg. wàllu mm. mathématique. al jabir nga xam ne ñoom ñoo découvrir ñoo. kooku Jabir moo tudd moo moo découvrir lu ñuy tuddi algèbre mm. mathématique comme 2x plus 1 égale a 0 genre yi demee noonu mm. wala ay 2 fois 2 4 genre yooyu mm. yooyu arab yi dañ ci ayoon defar ay montre di xool ci jaww ji di placer Égypte Égypte gis nga la fi nekkoon ci wàllu xam-xam gis nga ni ñu tabaxee woon euh, pyramides yi euh, ba fa yont yàlla Moussa jaaree mais après finalement lépp réer nañu bi ñu demee Espagne Andalousie nangami siècle arab kenn rawu leen ci woon. Hmm. Ah, wala astronomie wala lu ne lu ne. Hmm. ñu dem di yanjaaxal di yanjaaxal ba gars yi dàqaat leen ñu génn foofu léegi nag. wasalaam léegi nañu nañu barkeeloo téere bi rek te toog. Hmm. Ah, voilà. voilà les résultat donte boroom xam-xam yi ak ñii di gëstu euh, ñu ngi fi de même bu dee mën nañoo wax ne néew nanu par rapport ak nii jamono di doxee euh, wante ñoom ñu ngi ñu ngi fi de. oui ah évidemment ñu ngi ci mais mais justement mais xam nga xam nga boo gisee xam nga tubaab yi dañoo gën a muus xam nga ñun mooy li ma wax léegi xam nga xam nga lu ne xam nga yàlla yàlla kilifa gu toll ne suñu borom ci waxin euh, su ne lii def naa ci nangam loola nañ ko seeti su ne lii def naa ci. nangam nañ ko seeti su nee lii parce que gis nga lem lem yow mooy mooy miel. Hmm. lam lem bi bi ci yamb. waaw hmm. mais xoolal lem. Hmm. vertu yi mu am yëpp. Ah, ak neex te saf. waaw xam nga loolu yow. yaa ah, ngi wax te mën a faj. waaw kay xam nga yaa ngi ci saveur bi. bilaay walaay mais am na dañ koy def ci ay dagg-dagg. dégg am na ñoo xam ne dañ ciy faj ay yeneen waaw ci wàllu pharmacie. waaw am na sax yu koy jaay. Ah. boo demee ci réewu Togal yi am na koy transformé di ci def yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. est-ce que xam nga ne ay toolu baykatu yamb ci Europe. déggal loolu waaw ñoo xam ni ñoom ñoo def riche yi di di di dindi lem bi mais liñ ciy liggéey da nga xam nu mu toll wallaahi a ne man de maa nga yem ci saf-saf gi rek ak neex neex ah waaw mais voilà waaye nekk tey woo euh, du hmm. wax du wax ci ay fooyu faaye ñun nit ñooy wax ci fooyu faaye ak yeneen yoo xam ne yi alxuraan tut wax naa fi léegi suratu rahman gis nga aaya bi ma jàng léegi mais ñun suñu yoon nekku ci léegi daal nañ tari bàqara ba naasi sawaay mokkal na alxuraan ibaadaat malik nee na nangam tirmisi koor loolu ibaadaat yi la parce que euh, dafa am lu ñuy tudde sociologie du Coran le Coran a parlé largement de la nature léegi nag nan la ñuy exploiter nature mooy tabia bi hmm. Hmm? wax naa la fii keroog ankabut mooy mooy mooy jargoñ hmm. bi ko yàlla tuddee saar woowa gis nga tawil bi ma ci def ne jargoñ moom moom du fay luyaas du kii mais yàlla joxe na ci exemple mais exemple yàlla du neen yow yaay xool nag dugal sa xel ne pourquoi yàlla waxee nii mais su fekkee dañuy jël rek ayaat yi nga xam ne waaw rek jëmale ko rek ci sujjóot mais loolu baax na trop ndax loolu mooy base bi euh, donc il ne faut pas se la lecture du tout il faut absolument maanaam li la bindal euh, il y a côté bi ngay lire bien entendu nga xam ni a a kay bu ko yàlla waxee loolu loolu yàlla da koo boyal mooy mooy mooy leen hmm. xool leen dugg leen ci biir nanga mag nee la arab yi loolu est euh, nga baal ma oustaz du genre cax des fois des fois cax la ci lenn rek bàyyi la léegi yow nga utiliser sa xel pour dem au fond des choses merci beaucoup nag wax nga nag li nga xamee ne nag noonu la sunu borom sax parfois xam nga yàlla day wax ci li ñoo tuddee ay ay ay ay propos parabolique mm. day wax ci xam nga ay figure de style sooy jàng affaire point parabole parabole merci léegi nag yow yow yaay xool mm. exactement en tant que humain mm. yow mi yàlla jox xel lii lan la ci sunu suñu borom lam ci jublu moom rek ko xam waaye yow war ngaa xool ne lii man lan laa ci war a mën a jariñoo lu lu ëpp lu lu gannaaw bi ma amee ci ibaadaat yi ndax mooy base bi moom mooy mm. asal bi jaamu gi ak yu demee noonu ak ndigal yi ak tere yi maanaam alxuraan dafa am dafa am quatre boo ko doon diviser en quatre parties mm. dafa am loo xam ne lii dafay wax ak yow ci li la yàlla digal am ci foo xam ne fii day wax ak yow ci li la yàlla tere toujours dans le Coran am ci yoo xam ni dafay daf lay daf lay daf lay orienté yow ci société bi nga nekk comportement yi nga war a taxawee sa diggante ak nit ñi sa diggante ak nature bi ah sa dund yow lan moo lay wéral lan moo lay taxawloo lan lan sur le plan économie al iqtisadiya maanaam euh, l'économie euh, nan lañ ci war a mën a taxawee yooyu dafa bari ci alxuraan lool. Hmm. waaye yooyu yépp ñun suñu yoon néewu ci xamoo ci lu mu ne. Hmm. yàlla nee na yonent bi deen ay boo defee lii ah ba dem nangam ba mu ànd ak saaba sangam nangam. ça alors excusez-moi mais bon, quand même mais nañ ma man na ma na ma sama mbokk bokk daara yi baal waaye nag alxuraan alxuraan rëy na billaay ndeysaan moo tax tubaab yi nun man dafa bokk dama ci benn group boo xam bi ay boroomi xam-xam rekk a ca ne uh-huh. groupe bi xam nga nu mu tudd waxul uh-huh. jaa al xaqu wa zaqa al baatilu inna al baatila kaana zahuqa loolu noonu la noonu la groupe bi tudd te ay kàngama ci ne mais bu ma fa duggee xuloo bi day mel lay tulleeg màlle parce damay xuloo ñoom rek <laughs> su ma ñëwee ñu ne yow Maodo li ngay wax. parce que yow da bëgg a aller ah. au fond des choses. oui ah, te am na ñoo xam ne dañuy bëgg a rester sur la surface comme ça. oui oui xam ah. nga duñu duñu càmbar mbir yi ba ci biir. te gis nga xam-xam. yàlla tënku ci kenn na. déedéet yàlla newul fii la limite. waaw waaw waaw déedéet xadd amul ci xam-xam. loo mën a def ci recherche demal. Eh, eh. waaw yàlla bo booyal na ko déggal loolu. Euh, am na solo na muy amee solo saa su ne euh, maa ngi ciy profité di nuyu euh, Moussa Sow coordonnateur u COJER ah mooy jeune kii. parti républicain APR yooyu noonu. donc Moussa Sow sunu soppe la mu ngi ah, ñëw déglu jamono ji grand Ablaye Thiam di rédacteur en chef bu Sud Quotidien également ak waa Sud Quotidien. Ablaye waaw Ablaye benn waaw Ablaye benn. <laughs> bilaay walaay moom la Baba El Hadj Maal di koy naan ko naan noonu di ko taawi. waaw Ablaye Thiam waaw waaw maa ko wax Ablaye itam oustaz Sow Kogère jërëjëfati merci beaucoup wante est-ce que seetlu nga ne oustaz ba nu tàmbalee ba léegi lii nag gëj na am tudduñu fi benn yoon coronavirus. ah mais seet corona kat gannaaw moom léegi noo noo bokk néeg bi noo bokk bokk lépp. waaw nan dem rek. comme ça il est na ak lu ko topp maak ñu ne ci corona corona corona tey nag moom waxtaan nañu vingt minutes. ah tudd ñu benn yoon. mais mais Covid 19 waaye waaye nag xoolal gis nga doole ji corona am tudd nga ko. <laughs> xam nga xam nga loolu. xam naa ne wiri wiri jaari ndaw wiri wiri jaari ndaw rek. boobu ba léegi maa ngi naan mais man kon tudd ñu fi coronavirus doon oustaz Maodo Faye nee na ma waaye finalement nag tudd nga ko nag. voilà jeex léegi rek yegg si nga. lii man waa ji naan doon wax rek ne da ngaa ëppal yooyu itam. waaw xam nga damaa ëppal. waaw am na njuufeen bu ma ko masoon wax na ko da ngaa bëgg a ceeb mu ne ma yaa fi tudd ceeb de xam nga yëf yi moom. am na solo am na solo oustaz ñu dem ci whatsapp bi ah ah d' accord fàtte woon na ah looloo ndeysaan. Ah, waaw waaw sax léegi am ba léegi de. Eh, eh, bilaay walaay na corona amee ba léegi. kon ñu dem ca. ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo fay mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro whatsapp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53 asalaamaaleykum euh, aussi DFM WhatsApp si DFM maa ngi baax a baax di leen ñaanal di kontaan ci seen duo bi xam naa ne su ma duggee nag boo mosul Nicolas na mer man la la man daan def question bi may posé fii mooy question sax mais dama bëgg may ñaan la daal yéen seen duo duo boobu yow ak euh, Oustaz trente euh, dix à quinze minutes doylu est-ce que ñu am fu ngeen mën a tase une heure de boo xam ne yéen ñaar la ak auditeurs yi parce que vraiment Oustaz moo Faye moo sëriñ ñëpp kenn du daal ci moom mu daal ma doon li ma doon ñaan fekkoon mën na nekk ngeen am une heure de temps boo xam ni chaque jour nag amul tobal de chaque jour une heure de temps boo nekk waxuma la sax auditeurs di woote mais seen diwoo rek vraiment sedd na xol ñu nekk ku nekk man onze fu mu jotee dama doon def dama koy bàyyi ndax yéen yàlla na yàlla sàmm sàmm seen njaboot jërëjëf jërëjëf euh, mbokk mi euh, ku baax la. waaw eh, oustaz euh, dégg nga ah, laaj bi. Ah. waaw déet man loolu nag loolu <laughs> kat nag moom directeur ma ci moom moom moom yëfi suñu suñu diwo yow. <laughs> ah nee na vingt minutes doy ko ci. moom nee na bu ko mën mën nañ bañ a sax jëli auditeur. ñun nañuy waxtaan rek moom nee na sedd na sedd na xolam nee na une heure de temps la bëgg. wallaay ndeysaan léegi nag. Euh, bu ko defee waa waa direction bi. waaw ñoom kilifa yi ñoom ñoo ñoo ci am. ñoo ci am waaw ñoom ñoo ci am seen dogal. waaw maa ngi wax directeur ne aussi am na ay télé ak ay rajo yu ñoo xam ne ñu ngi ñoo soxla jamono yi <laughs> di ñu woo naan ñu diwoo boobee euh, sud yor euh, ñun tamit mën nañ koo yor kon nag waa waa sud ñoom itam danoo xool. naka lañuy defaraate loolu du du noonu oustaz gis nga ni ma ko ni ma ko kiiwee noonu. waaw dégg naa li nga wax kay dama la tontuwul kay waaye ma akamaa dégg li nga wax de toutes les façons xam nga ñun ñun dañuy dañuy dañuy euh, dañ koy wax dañuy sant rek ñuy def. xam naa peut-être directeur mi ngi déglu ak eh. kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk. alors ñoom ñoom ñu ci décidé. Ah, ñun ñu ñu ñu seet lañ ca man euh, fa tabaarakallaahu ñu def ko. parce que El Hadj Ndiaye waxu la ci dara bu 2STV. <laughs> non yow da ngay sànni xeer rek quoi eh, bu TFM waxu la waxuñu ma ci dara ah, déedéet. Bougane Gueye Dany Sen TV waxu la ci dara non déedéet ñooñu ah, sama waxuñu ma ci dara sama léegi daal li ci am solo mooy euh, ñoom. mais Mamadou Ibra Kane bu ITV. waxu la ci dara non pas du tout pas ah, bu set. déedéet déedéet waaye yow bàyyi li ngay wax waaye. yow yow da ngay sànni xeer rek maanaam maanaam bu bu xam nga xam nga rajo bi dafa am programme quotidien ah, bi ni muy tëddee léegi ñun lii rek lii lañ ciy def su ko defee après journal bi mooy ñëw après 13 heures après et cetera mm-hmm. léegi suñ ci mënee xajal lenn mm. en fonction ci emploi temps bi ni muy demee mm. ah yàlla na ko yàlla def bu fekkente ne kilifa gi mm. Baye Omar euh, xalaat na ne loolu moom lu baax rek lay xalaat ah. bu xalaatee ne baax na ah. fa tabaarakallaahu xayr ñun on est Euh, affaire bi dafa xata xata xat ba du ci xaj. ah ñu seet rek ñu muñ ci li jàppandi ci lii rek. waaye madame Faye bu Walf TV tamit waxu la ci dara. oh yow daal vraiment yow. yow da ngay sànni xeer ba moom mi ngi lay déglu sax parce que moom sa fans la quoi. soo waay la waaw léeg-léeg mu ne mais moom nangam nangam. man ah Nicolas maa yëpp rek. moo ko waa Walfadjri yëpp bu nu xëyee. saa bu nu la woykat ba waxoon saa bu nu xëyee ñoom ñu ngi connecté wu ci oustaz Maodo Faye ak asalaamaaleykum wa rahmatullah siyaar nañ leen bu wër a wër waaw suñu wétal suñu rajo mooy suñu wétal mooy suñu mooy suñu lépp siyaar nañ leen waa Sud FM yëpp waaw di nuyu ñëpp xëy fajar déglu Mbacke Sylla teg si teg si Alioune Sall ñëw ngeen jox ñu journal 11 bi jot ñëw ngeen ne Mayda Maodo Faye ak Nicolas gën a neex ak xam macha allah yéen daal seen rajo moom yàlla na leen yàlla fay daal waaw Maodo Faye siyaar nañ la bu wër a wër man nag dafa am benn question moo bëgg a laaj waaw comme ngay julli ngay julli ba mu yàgg nga nga tari euh, Fatiha boo taree Fatiha ba pare nga teg saar léegi saar bi nga juum ci nga juum si saar bi miyaa um bi nga dagg saar bi noonu sujjóot yeggalu julli bi nga sëggaat ba suuf juumaat si sujjóot bi nga jóg taxaw naan naan naan man benn sujjóot laa def wala ñaari sujjóot comme boo sujjóotee xam ne ngay sujjóot sujjóotaat ngay juum nga xalaat naan benn sujjóot laa def wala ñaari sujjóot léegi nga xalaat ne juum bi nga def yow bëri na nga dagg julli bi yow reprendre raat loolu laay laaj ndax baax na wala waaw bu loolu weesoo nag siyaar nañ leen wër a wër di leen nuyu bu baax a baax di leen bëgg di leen déglu chaque jour kay yéen a ñuy wéttali jërëjëf euh, borom baax ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm oustaz dégg nga laaj bi waaw dégg laaj bi <laughs> laaj na lu am solo waaye dafa <laughs> mu hmm. xam nga julli euh, da ci am ay farata yu ci nekk am ay sunna yu ci nekk am ay waajibaat yu ci nekk ay mustahabaat moom daal tawarkal la léegi nag euh, fatiha dafa nekk farata ci julli kooku moom mënoo julli te tariwuloo bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wala ñuy tàmbali alhamdulilah bon léegi li nga ciy teg ci alxuraan lu mu mën a doon lu mu gàtt gàtt même tey boo jukki woon benn aaya alxuraan ci suuratul baqara jàng ko daal di def rukon xam naa rukon la bëggoon a waaye mu wax far mu wax sujud euh, loolu julli gi dana baax. léegi nag mm. sikki sàkka bu amee ci julli mm. sikki sàkka mooy ngay ngay werante ci dara mm. ma joxe benn exemple waa jiixi jaaxa ah. ma joxe exemple bi gën a banaal tey may werante may julli tisbaar ba mu yàgg ma naan waa mais man trois laa julli quatre laa julli déet trois la wala quatre la toujours del wàcc ci gën a bi gën a tuuti euh, boo dee jiixi jaaxa waaw ne ndax euh, li nga julli ëpp na wala néew na waaw toujours del wàcc yow del gën a néew war di wàcc boo doon wax ne damaa wala ci deux laa yem. maanaam. Euh, naa def deux bu ñu jëlee naa jàpp ne deux la waaw par exemple euh, takkusaan jot na. Mhm. nga julli sa euh, takkusaan ñaata ràkk la. du ñeent ñeent ñeent waa ñeenti ràkk yi léegi nga dem def juróomi ràkk exemple. waaw déet loolu da ngaa yokk julli gi wax boo waxuma lool de. waaw loo ko loo wax foofu. dama doon julli tisbaar wala takkusaan. waaw ma dem ba ci. ñaareelu rakka bi wala ñetteelu rakka bi. waaw nga naan ndax ma naa ñaar maa ngi maanaam maa ngi ci deux wala maa ngi ci trois. Ah. naay considérer toujours deux. Ah. naay considérer toujours bi gën a tuuti. Ah. maanaam yow booy xalaat naan damaa yokk ci te ba yaa ngi ci biir julli gi naan dafa man fan laa toll. maa ngi ci ñetteel même bu fekkee ne par exemple. Euh, àgg nga ci ñetteelu rakk waaw mais xamuloo foo toll. sa xel daal mooy. waaw naan naan deux la wala trois la yow defal deux boo paree nga def xam la salaam. d'accord da ngay wàññi da ngay da ngay da ngay da ngay considérer bi gën a néew. Hmm. bala ngaa sëlmal nga sujootal ko. wante la ma wax tamit boo demee ba euh, parce tamit xel des fois nga sa xel nekk feneen. Ah. ngay ci dem dem dem dem dem rek def juróom wala juróom-benn boobu yaa ngi xalaat ne <laughs> mais man est-ce que sax ëppalu ma ci ci li ma li ma waroon a. def xam nga xam nga wax naa ko fi keroog xam nga julli. Hmm. mais julli nag boo ci yokkee lu toll ne la war la nga waroon a julli julli nga yàqu na ah da ngay reprendre yëpp waaw bu fekkente ne tey masalan waaw nga doon julli tisbaar waaw xam nga ñeent rakaa la waaw nga julli ñeent ba noppi di tararara ba def ba tegaat ci yeneen ñeent kooku moom bata ah, kon da ngay yàqu na donc parce que da caa tegaat quatre rakaa encore de plus waaw mais boobaa naka ci pexe da ngay reprendre julli gi wala comme yàqu na kay la koy jër loolu ah, koy xel non non booy boo julli gi yàq na koy mooy julleegu kon da ah. julliwaat léegi nag euh, dafa am tamit lu wax lu am solo mooy mooy sikk sàkk bi chaque ah. chaque mooy li ma doon wax léegi nii léegi nag saar bi ngay tari ci gannaaw faate bi loolu sunna la hmm. foofu nag boo tey ma joxee benn exemple ma jàng faatiha di julli hmm. ba wara daadiin amin def naa farata ji may jàng wadduha hmm. ma ñëw ba ci wadduha ma ne wadduha wa leyli isa sajja maa wadaaka rabbuka wa ma qalla wala al axiratu xayrun laka min al ula xam nga saar wi des na ma ma rukon am naa julli pourtant àggalewu ma saar wi de hmm. waaye damaa coqati ndax dañu wax rek ne loo jàng ci alxuraan rek hmm. même moo moo tax ma jox exemple léegi ne boo demoon ca suuratu bàqara hmm. fekk jàng nga faatiha ba pare nga tibb fa benn aaya jàng ko xam nga xam nga bàqara dafa rëy nga nga jël ci benn aaya wala ñaar wala ñett boo defee rukon yàqul julli gi léegi nag bokkul ak tamit ba tey nag léegi maanaam ki def erreur wala ki def faute. Hmm. ki juum. Hmm. léegi nag am na ci sakk boo xam ne boo ko defee boobu boo ñëwee da ngay def xabla salaam. loolu loolu kese la woon. am na solo euh, kon ñu dellu ca whatsapp ba ak bi mujj. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Alaaji Maodo maa ngi lay siyaar di la bu baax. Euh, di nuyu Nicolas. léegi man de sama benn question bu ko bëgg a laaj yéen ñee journaliste yi laa bëgg a laaj yéen ndax amu leen accès pour mën a dem ci hôpitaux yi. mën a xool xool malade yi qu'est-ce loolu daal laa amoon laajte bu may laajte jërëjëf. ah laaj bu am solo la waaw ci corona bi surtout. waaw nee na coronavirus bi. lan moo tax presse bi journaliste yi euh, amuñu accès dem ci hôpitaux yi xool malade yi euh, nemmeeku euh, fajkat yi ainsi de suite loolu it laaj la de. c'est une question d'organisation xam nga du ci du ci du ci taskatu xabaar yi xam nga ñiy gérer ñiy gérer Covid bi ñoom dafa am ay ay ay ndigal yu ñu leen jox mën nañ def point de presse. mën nañ def conférence de presse surtout jamono yi nga xamee ne dajaloo bi ak yu demee noonu dañ koy aaye wala ñu def visio xam nga ñu nuñ ko mën a tuddee. léegi nag visioconférence waaw visioconférence boobu. Mm. xam nga léegi journaliste yi. Mm. war na noo mën a am sañ-sañu ñu ubbil leen waaye bu leen ubbilul duñ dem itam. waaye nag li doon gën mooy ñu jox leen ay jumtukaay yu tax ñu protéger wu dem xool vérifier. Mm. parce que euh, journaliste d'investigation am na nga dem xool nangam. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne ñooy gérer. Euh, Covid boobule ñoom ñoo am sañ-sañu wax ne dañuy def. porte ouverte ubbil taskatu xabaar yi waaw wala déet parce que en fonction ci niveau feebar bi fi mu toll ah taskatu xabaar itam foofu rek la mën a yem mais amuñu droit nag ñun taskatu xabaar yi jékki-jékki na forcément dañuy dem ci hôpitaux yi dem xool la fa nekk déedéet il faut euh, comme ni nga ko waxee euh, question d'organisation la. voilà c'est aux autorités ak ñi jiite. voilà euh, kër gu taskatu xibaar yi. merci ah ñu organiser wu xool loolu. ñu ngi koy jàppandal de parce que gestion Covid 19 bi dafa am ñuy kaas. ñu mm. bëree bëri mm. ne ñi nga xam ne ñooy agents communautaires yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu paj mi. Mm. na ci ñoo xam ni dañuy jàpp ne dañ leen a boddi hmm. ni ñu war a ni ñu war a dugg ci xeex bi hmm. ah, waa croix rouge bi nekk géejawaay dégg naa ñuy kaas noonu ndax ñoom ñooy jox lekk gars yi ñu ngi leen di toppatoo nangam ak nangam hmm, li ñu waroon a jot jotuñu ko ñi nga xam ñoo gën a nekk ci suuf ah, ak ak yeneen mbootaay fajkat yi infirmiers yi war a mën a dugg ci biir am na ci ñu njort ne dafa am rek ñu nekk ci kaw ak moo affaire yi euh, boo boo boo waxee agent communautaire de la santé war a ñëw gars yi xaw leen a <laughs> li gars yi wax naan xaw leen a sis tuuti xëy na euh, ceeb bi dafa am lu ci rax léegi nag boo ko defee ñu sant seen wala Diouf wala ñu sant Ngom dañuy daal di dañuy daal di xaw mel na ñu boddi ñenn ñi am na ñuy kaas loolu ci gestion Covid bi d'ailleurs euh, Euh, puisque yaa ngi koy euh, tudd euh, tey ma leeral mbokk auditeurs yi ne bu ñeenti waxtu jotee mhm. ci émission bu mag boobee di stop coronavirus ak Marie Rosalie Ndiaye mhm. danañ dalal président national du réseau des organisations communautaires en santé. ah très bien parfait voilà day fekk si li ngay wax. voilà day fekk si li parce que loolu man jot naa ci ay SMS am na ci ñu ma woo wax ma loolu de toutes les façons ñoom ñoo ci am seen dernier mot ñun dañuy <laughs> waxtaanee jottali rek mhm. voilà donc loolu mooy li nga xam ne mooy gestion bi daal décrier wax ne daal ñi ci kaw rek ñoo ko àkki moom hmm. kilifa yi ñoo ñenn ñi hmm. mënuñu agsi ci yenn kii mais d'ailleurs ci seen biir ñoom ñu ci bëri ñu ngay wax ne ci wàllu communication bi am na lu bëri bëri bëri lu des euh, bu dee am na lu bëri lu des nag forcément euh, dafa laaj jubanti mais euh, oustaz est-ce que ci ni mu ko waxee taskatu xibaar yi war na noo mën a am accès maanaam ci structure de santé yi ci feebar yi ci ñi ñu faj ba pare ci médecins soignants yi ainsi de suite waaw waaw xam nga war non xam nga mooy li jaadu ak li ñu war a def ñoo ñoo daje ci ci kàddu googu li mooy ñu war a am accès xam lépp parce que tam moo tax man la gestion bi ko ministère de la santé géré ñoom dafa am benn façon bu ñu ko yoree boo xam ne bi ñoom lañ ne nii lañ bëgg a doxalee parce que ak ci doomu jàngoro bi ni mu garaawee ak ni mu gaawee wàlle xëy na ñoom moo tax ñu def doxale noonu hmm. mais normalement dañ war a informer objectivement lépp lu ci xew askanu Sénégal xam ko am ñu bañ a def rétention d'information mm-hmm. mais liir naa tey ci suba benn docteur bu nekk ci benn sami xam mu ne information yi ñuy jox am na ci yoo xam ne demewul noonu loo ci man mi ngi mi ngi saye dans les journaux d'aujourd'hui ah xam nga mu ne mu ne voilà mu ne am na information yu ñuy jox ci nombre yi chiffres demewul noonu waaw dañoo bañ a tudd chiffre mille parce que nangam après wax na dem ba sax ba ñi yore kaw mbir la mbir la ah. parce que ñu yore ah, information yi euh, lu doy waar la bu dee nekkul it lu doy waar la euh, daal mooy loolu beneen question bi ci des man j'ai constaté beaucoup sax beaucoup avons constaté que ñi nga xam ne ñooy joxe résultats yi c'est pratiquement trois personnes ak ni Sénégal toll yëpp ministre bi ngay gis wala Aloyse wala soxna si njeex na te pourtant mënoon nañ <laughs> waaw ci ci quatorze millions peut-être nag seen organisation la kenn décrire ko garaawul tamit parce tamit bon léegi ñoo waxandoo waxandoo mais tamit am na mais bu doon tourner bu doon tourner di dem ba ci suuf waaw ah, d'accord mais de toutes les daal ñi ko aakimoo loolu xameef na ko ah, waaye léegi mais ñi ko aakimoo ci kaw hmm. nañu woyofal tuuti dugal gaa yi tuuti tam hmm. ndax que daa mel na mbir mi daa am lu muy xeeñ de ci loolu question bi mu laaj maanaam gis par exemple euh, guerre bu amee ah, ñu gis euh, armée dem sur le sur le terrain nekk ci ci ci xaw nañ koy tuddee ci ci seen ci seen euh, langage armee seen jargon yooyu waaw ci seen jargon euh, mais ñu gis ne ay tas xibaar mën nañu mën nañu cee juuxu mooy journaliste yooyu ngay tudd d'investigation yi d'investigation ñoom itam ñu dem ci terrain bi malgré risques yi nga xam ne dañ koy encourir également loolu lépp ci wàllu tas xibaar ak informé donc peut-être foofu la dëgg la dëgg la dëgg la est-ce que ci crise bi ak na mu demee warul woon am journaliste yoo xam ne bien entendu yu xarañ lañu euh, xam seen liggéey bu baax te ràññee euh, crise bi bu baax a baax a baax mën cee juuxu ñoom itam mën a war a gën a mën a wane li ci biir. xam nga loolu xam nga loolu ba lay day delluwaat ci li ma wax léegi ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk mbiri réew mi ministère bi ak itam chef de l'État ñooñu ak docteur yi ñi nga xam ñoo yor wàllu paj mi ñoom ñoo am sañ-sañu xam-xamu mën a yombalal. maanaam jàppandalal loolu ko wàllu di tuddee ñoom ñoo mën a jàppandalal mbir yi pour que taskatu xabaar yi am accès hmm. parce que taskatu xabaar bi lu mu bëgg bëgg bëgg bëgg liggéey te wóor ko ne bu demee fee tamit mënta àgg fee nu ko tubaab di waxee mënoon gën a nekk roi que roi on léegi problème bi mooy kon da nga ci jànge mooy comme ñoom ñoo yore mbir mi ñoom ñoo mën a ubbi seeni i bunt mm. wala ñu bañ a ubbi seen i bunt loolu nag kenn du mm. leen ci xarab ndax ñoom seen mbirum bopp la mm. mais taskatu xabaar yi am nañ normalement dañu war a am information yépp mais nag am na tamit loo xam ni tamit neexut a wax it ndax xam nga nag euh, du sax rétention d'information mais dafa am loo xam ne parfois ci crise booy communiquer da am ay mesures wax ma ne doo wax dëgg de. mais am na loo xam li yaay xam na ngay toje sa bopp janax. xëy na peut-être la. am na solo aywa gannaaw bi ñu jógee ci bi sant leen gërëm leen bu baax a baax ñu dem ci serveur bi 88 628 98 98 mbokk mi nee ko allo. allo. ah kooku dafa mel ne. kon 88 628 98 98 ñu jël ki ci indi xalaatam ak gis-gisam oustaz ne ko allo. ay ci allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Cheikh Maodo Faye. di la ziar bu baax. noo ngi lay bu baax. rafetlu jotaay bi. am na solo loolu. Mhm. di nuyu sama doomu baay bi Nicolas. waaw. maa ngi koy ziar bu baax. waaw ah, oustaz. Ah. na laaj bi mu ne maa ngi bokk ñoom ñoom diine daal. ñun bokkulul diine. waaw ku mel ni chrétien yi daal maa ngi dugg ci kàddu gi. waaw. ñu waaxee saay daal. waaw. bu ñu nee asalaamaaleykum. waaw loolu war a fay ak waaw loolu la sama bopp dara. ah nga accord d' accord. rafetlu jotaay am d' accord. jërëjëf bon. Euh, jàlloon na fi mais dinaa ci tontuwaat xam nga. Euh, xam nga nee euh, pour mu leer ci ñiy déglu tamit nee na chrétien bu la wax salaamaaleykum yow mi jullit loo koy tontu. maaleykum salaam nga koy wax loolu du problème gis nga nuyoo bi gis nga nuyoo bi ay baatu arab la gis nga ay baatu gis nga moom laa waxoon fi benn jour man il faut ñu def distinction entre l' islam et la langue arabe. ki la romb nuyu la du gëgu leen ci diine def la moom laa waxoon fi ne la bonjour mooy yàlla jour bi bon xam nga mooy. sas nga ne bonjour. mooy yàlla jour bi bon yàlla jour bi bon. waaw ak ñaan la di. kon nag mbokk yi yàlla jour bi bon. waaw ak ñaan la. maanaam sooyee la maanaam ak yaakaar la waxuñu ci wàllu gis nga diine diine yàlla dafa bëgg ci noonu ak jàppandal gis nga ahlul kitaab bii ñuy wax ni man ku ma ci romb ne ma asalaamualeykum. Hmm. dama naan la aleykum salaam xam nga lu muy firi. Hmm. yàlla jàmm nekk ci yow man te man ko yéene naa la jàmm mais loolu lu mu jot ak àllaaxira ak yowmal xiyaam alxuraan ak yàlla ak bi mm. loolu dafa nekk lu loo xam ne lii nit ki war na ko mën a nangul nit ki ku la nuyu fay ko alxuraan nee na bu ñu leen nuyoo la wax mm. te ba mu koy wax man dëgg ci aaya ba dégg mu tudd fa ahlul kitaab mm. wala mu dafa ne rek bu ñu leen nuyoo na ngeen delloo nuyoo bi kemtalaayu la ñu leen nuyoo wala sa faf ngeen nuyu ba dolli leen ca bu ma la waxoon tey asalaamaaleykum mm. su la neexee nga ne ma salaam mm. point ñu ñu mat si niil mm. su la neexee nga ne ma wasal waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba wees la alxuraan ko wax léegi nag yow bu la neexee man bu ma rombee nit ki xëy na bokkuñu diine xam nga diine la ñu bokkul waaye dañuy nuyoonte nag waaw <laughs> wax dëgg yàlla waaw bi bon waaw léegi seulement bonjour waaw ci tubaab ma ne ko bonjour xam nga lu ma ko lu ma ko wax ah. mooy sa bis bii ah. yàlla na ci jàmm nekk ndax bu ci jàmm nekkul du am bon kon kay loolu ak ñaan la ba tey mbir mi ku la nuyu fay ko jeex na wasalaam. ne ko allo allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw man nag dama bëgg a def sama tool wante dama bëgg a wax ci affaire question boobu auditeur bi lu tax journaliste duñ dem seeti malade malade yooyu. Mhm. waaw parce que man ci affaire boobu hygiène laa yëngu. Mhm. voilà donc euh, hygiéniste la def naa trente ans ci santé. Mhm. voilà donc euh, dafa am c' est parce que dafa c' est technique. Mm-hmm. parce que ce type de maladie dañ lay isolé. Mm-hmm. donc euh, euh, ñooñ kenn du leen defal visite. Mm-hmm. même seen famille duñ ko duñ donc am naa ki yi ma ci bind. bon man mii dana mën na leen su mu amee seen kii mën na leen ko envoyé. comme ça c' est des c' techniques yoo xam ne. da ngeen mën a am rép euh, mën a joxe réponse yi. Mhm. voilà. d'accord. Donc, par rapport à, à, la communication des crises en, cas de, de, dans un établissement de santé. Mhm. yooyu yëpp dafa am ay dafa am ay protocole yu ñu war a jaar. d'accord. waaw. jërëjëf. donc euh, xaw ma nan lay def su ngeen mënee jox euh, benn kii. waaw da ngay da ngay papa da ngay woote 33 825 18 30. 33 825 18 merci merci beaucoup merci ñu ngi koy sant bu baax xam nga moom li mu wax daanaka boo boo boo wëlbatee wax ji mooy li ñu wax léegi rek mhm. parce que am na foo xam ne fii ñun mënuñu faa yegg ñoom ñii yore docteur mhm. xam fi fi fi doomu jàngoro bi toll ñoo ñu mën a ubbil wala ñu tëjal ñu mhm. ndax ñoom ñooñee di kilifa yi ñoom ñoo mën a ëpp parce ñoom ñoo yor information ñoo xam ñoo mën xam ne euh, euh, yoo xam ne mënoo ko wax feeñal kenn mënu ko wax mais am na yoo xam ne it bu itteelee askan wi de toutes les façons. waaw euh, xëy na seen secret li ñu naan secret du métier xëy na seen secret la. waaw mën naa ne ñoo ko yoreel seen bopp de toutes les façons daal taskatu xabaar moom bu ñu ko woo mu ñëw bu ñu ko woowul mu toog rek. jeex na allo allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Maodo na ngeen def. ñu ngi sant yàlla ba alhamdulilah. ñu ngi kontaan seen émission bi di leen ñaanal yàlla. alhamdulilah macha allah. dama dégg ngay wax benn wax boo xam ne xaw na ma jaaxal. mooy banati en tant que borom xam-xam. ah. ñuy distinguer langue arabe ak l'islam waaw l'islam ko làkk bi waaw. l'islam mënoo ko comprendre te jàngaloo arab. ah. mënul nekk. Mhm. ndax yàlla mu ngi wàccee alquran ci langue arab. inna anzalnaahu qur'anan arabiyan. Mhm. am déet. mu waaw. mënoo comprendre alquran te jàngaloo lugal arabiya. kon l'islam kenn mënu ko comprendre te jàngaloo arab jàng bu wër. loolu mooy dëgg. parce que alquran ji. yàlla nee na wàccee wu ma ko ci anglais wàccee wu ma ko ci français maa ngi ko wàccee quraanan arabiyan i il faut nga dégg arab nga mën a jàng arab pour mën a xam d'accord beneen bi asalaamaaleykum ni nga ko xamee mhm. yàlla mu ngi ko tànnee ci nuyu waa aljanna mu jox ñu ko ñun waa aduna ah. di ko ah oui salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin salaamun xawlan min rabbin rahim déedéet salaamun ah aleykum waaw da da man kay d'accord naa yow dama xaalidin waaw d'accord yaa ngi dégg uh-huh. léegi kon asalaamaaleykum nuyoo la bu yàlla jagleel waa aljanna may ko waa adduna mm-hmm. yaa ngi wax bi mm-hmm. ba pare muy julli ñi julli ñi moom la ñuy nuyoonte kon julli ñëppay dem àjjana non waxuma loolu de sëñ bi ah, waxuma loolu de ah damaa comprendre non waxuma loolu de ah dama benn benn question bu ñu la posé waaw ma dégg nga ton si benn tontu mm-hmm. ma lay may at may may contribuer ah d'accord ci loolu nga wax noonu Hmm. pour leeral aussi ay mbir. Hmm. benn bi mooy dama dégg nga ne waruñu comparer diine l'islam ak langue arabe. loolu c'est une erreur. kenn mënut a comprendre diine l'islam te jàngoo arabe jàng ju wër. Hmm. ndax alxuraan ji yàlla mu ngi ko wàccee ci arab ci langue bu wër. jox naa la aaya bi inna anzalnaahu qur'aanan arabiyan loolu leer na. d'accord kon mënoo mënoo jàng mënoo comprendre alxuraan mukk te jàngoo arab jàng jàng bu sell jàng bu wër. d' accord waaw ah, d' accord mënoo comprendre diine aussi te comprendre lu arab. d' accord waaw léegi léegi léegi euh, mhm. wax nga leer na. léegi mhm. léegi bàyyil tamit oustaz moom itam mu indi mu indi ci tontu. bu nekkee bu bu waa baa équilibre am. voilà oustaz wax merci très bien. xam mhm. nga arab am na ñu jàng arab ba mën ko firi am na ay arab yoo xam ñii gëmuñu yonent bi. dëgg la amul problème. waaw de dafa ndànk rek maa ngi ñëw. Eh, am na gis nañ ay professeur d' université yoo xam ni mosuñu leen a xam ci daaray alxuraan. Mhm. ñu ngi ko jànge ci yeneen làkk te dégg nañ alxuraan mën nañ koo jullee mën nañ cee woore mhm. maanaam yàlla wax nga dëgg moo wàccee alxuraan mu nekk arabiyan mu biinan mu biin mu mhm. biin loolu kenn werantewu ci ak yow mais est-ce que yàlla dafa wax ci alxuraan ne ku jàngul alxuraan rek doo dégg diine wax ma loolu aaya boobu non déet déet ba déglu ma amul ci alxuraan te yow da ngaa wax ne mënoo comprendre diine tant que jàngoo arab te loolu yàlla dama ne la ah Ah. Oustaz Maodo waxuma loolu Oustaz Maodo ah. dama ne de waa ji daf la woo laaj la ne la man dama waa ji dama ne ko dama ne ko il faut ñu ñu ñu ñu ñu def différence entre la littérature arabe la langue arabe et l'islam non dama doy da nga ni kenn nañu nañu nañu def différence mënuñu comprendre mënuñu waruñu di boole langue arabe ak l'islam mais c'est ce que je bëgg la won na mais loolu defal ndànk defal dama ne damaa wax waa ji na ko yow ti ma comprends pas dama ne il faut mhm. ñu def la différence une dichotomie entre la langue arabe et l'islam xam nga loolu lu muy signifié firiwul ne firiwul ne l'islam du arabe firiwul moom laa lay wax nag l'islam sax mënoo def mënoo def nag langue arabe différence léegi ma jox la benn exemple jox la benn exemple léegi man xam naa benn universitaire par exemple bu nekk mhm. Mhm. boo xam ne dafa bi mu tuubee dafa dugg ci l'islam jàng na mhm. l'islam ci anglais ba même miraas sax mën na ko def te te arabam baaxul Maodo loolu werante ko ah, kon ko non dama ne la l'islam moom mënoo ko comprendre dëgg-dëgg ah te jàngu arab. fu mais mais waa ji waa wax nii jàngul arab te comprendre na mais mais ay arab ñoo bind ay arab ñoo bind. ay livre non mais attends non léegi papa oustaz nga baal ma papa nga baal ma. non non non non déedéet defal naa dama leen bëgg a invité benn débat. ayca na ñëw na ñëw. Ah, amul problème voilà sama papa sama papa toog et puis oustaz Maodo nag sama papa buy wax nag da ngay déglu. mais dama koy déglu dama koy mu toog mu wax yow tamit mu ñu may la yow itam nga wax. Ah, merci beaucoup xam nga xam nga xam nga arab xam nga langue arabe. Nicolas xam nga langue arabe. waaw xam nga alxuraan may ko may ko waaw waaw maa ngi lay déglu waaw ma ne Ah. Nicolas mm-hmm. c'est-à-dire euh, képp ku jàng l'islam mm-hmm. comprendre ko mm-hmm. ci beneen langue bu bu mën a doon moo xam anglais la moo xam espagnol moo xam latin moo xam bu mën a doon dafa fekk kooku ki ko ko traduiral fekk ne mu dégg arab bu baax a baax ba mun a bind téere boobu mu mun a jàngee bu mun a jàngee moom ba comprendre l'islam waaw mais je d'accord mais kon koy firmule Maodo attends rek ñu dëgg gis nga affaire yi affaire yi Euh, man dama lay déglu tout le temps dama leen di lu bis bu nekk. oui woote naa ci koor gi yaa ngi doon dégg may wax gi woote ci mbas mi et tout. mais dama la bëgg wax ne la naa ngi dégg ngay wax affaire yu bari may noté gis nga loolu ni ko laa wax noonu pour su su amee débat. oui ayca. nga am ay débat d'idée dina lu bëri dina leer. waaw xam nga xam nga man xam nga man loo xam nga loo mënul comprendre ah. <laughs> xam nga loo mënul comprendre. Mhm. soo jàngul arab rek doo comprendre diine. non man daal man daal loolu man mënu ko. xoolal sas nag ah, ak sama papa nag ngeen jégal ma. waaw waaw d'accord journal bi ñëw. waaw waaw léegi léegi léegi pratiquement bi euh, boobu. waaw léegi danañ ko àggale mais xam nga ah. moom li mu wax. Ah. sëñ Fall mi li mu wax. xam naa ko bu baax a baax. mais li mu wax nii. loolu moom yàlla waxu ko. boo jàngul boo. waaw mënoo comprendre diine tant que jàngoo. waaw léegi la la suite à suivre. mais loolu euh, papa maa ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf ñu koy jërëjëfati merci beaucoup jërëjëf. bon léegi oustaz bàyyi bàyyi non pare naa ci débat bi man danaa def débat bi. Ah, waaw ah, bu ko ku nekk indi say sujet voilà bu ma mm. indi it euh, ali Alioune Sall mu toog. ma bàyyi leen ak seen débat. voilà ah, loolu neex na. loolu dama cee kontaan parce que xam nga débat bi xam nga xam nga alxuraanul karim bii yàlla dafay dafa wax ne ci alxuraan bii eh. sax la ko waxee ne du ma yónni benn yonent lu dul bi lisaani xaw ma yi hmm. maanaam su ma yónni Nicolas hmm. mu dégg wolof ci wolof rek laay wax ak moom hmm, kon léegi langue bi jumtukaay la pour nga dugg ci diine mais ce n'est pas parce que soo déggul arabe forcément waroo mën a dégg l'islam loolu moom vraiment nekkul ci téere kon <laughs> euh, euh, xam naa fa lañ damaa war a dugal publicité. on est d'accord journaliste euh, tas xibaar yi. Euh, maa ngi lay sant bu baax. maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di xam le ne yàlla moo wax ci alxuraan ne xam-xam tuuti rek la. li ma ci wàccee pardon lu tuuti la. ay mm-hmm. mazahib ñoo am ay écoles yu bëree bëri bëri ñoo am. Mm-hmm. am na sax ñu ne ëpp na 4 da gis ko jàng Malik kenn ku dem jàng alban après ñu def discussion def débat kii ne lii kii ne lii parce que wax naa fii ba tey ne imam Shafi yi euh, imam Malik jàng na ci imam Malik waaye jubawuñu ci julli mm-hmm. <laughs> am maître bi ak élève bi ah mm-hmm. mi ngi mel ne yow nga jàngal ma julli mm-hmm. ma jàng ci yow fiq daal te bi ma bi ma demee ba génn sa université maag yow ñoo déggoo ci julli am na ci sujjóot yu bari yoo xam ne Malick ak ak Safi ñu ci. Mm-hmm. te pourtant Malick jàngal na Safi. Mm-hmm. voilà yàlla yàlla defal ñu. sutura allahumma amiin <laughs> jërëjëfati oustaz Maodo Faye sant ko gërëm ko euh, ci xam-xam gi euh, ak yooyee daf may neex bu baax a baax a baax des fois aussi ah oustaz tamit parce que ban man d'habitude la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy gësam yëngal gësam ci ci antenne bi des fois aussi am borom xam-xam bu dugg ah mook oustaz Maodo ñu sekk ko bu ko defee nag bu jamee demee ba kanam ma daal di woo suma papa oustaz Alioune Sall nee na ko nag organiser ma débat boobu débat boobu dina neex lool ah mu ngoog <laughs> kon <laughs> jërëjëfati jërëjëfati borom xam-xam yëpp ñuy déglu eh, di ñu bàyyi xel ak eh, di ñu topp saa ñu ngi leen di sant di leen gërëm mu ne woon seen émission ndekki li émission naan di tey ñu ànd ceeg orange mi leen ciy gunge saa su eh, de téléphonie mobile leader ànd ak émission leader sur la chaîne leader on n'est jamais leader par hasard visez la lune car même en cas on atterrit toujours dans les étoiles tàllal leen loxo yi ñaan bismillah ba suba ak jàmm ci ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtab ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa urrahman ci daraja ay met ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat may nu dund bu mat may nu ndox bu mat sëkk may nu teraanga bu mat may nu jàmm ju mat may nu paj yaakaar ju mat may nu wér gu mat may nu wérle gu mat sëkk may nu dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla jigéen ñi yal yàlla dalal seen xel yal yàlla sàmm leen yal na yàlla bindal leen gàllaaju boppam yal na yàlla sàmm doom yi ci seen kanam yal na yàlla umpule leen lu leen di rikki yal na leen ko yàlla umpuleel yal na leen yére yomb yal na leen dund yomb yal na leen dépense yomb yal na leen pas-pas yomb yal na leen jóg dem doxi soxla yomb yàlla bu leen dara gàllankoor yàlla bu leen dara yàqal yàlla bu leen dara ñeleju yàlla bu leen dara def lu leen di naqadi yal na yàlla aar leen mag ñi yal nañ ci yàgg yal na seen fatt yokk yal nañ ko fi bàyyi nang mi junniy as yal nañu dund ak ñun ba doyal dund tabarkal la mag ñu baax lañu yal na ñu yàgge sag yal na ñu yàgge xam-xam yal na ñu yàgge jaamu yàlla yal na ñu yàgge leer ci dënn yal na ñu yàgge leer ci pénc yal na ñu yàgge leer ci kër yal na ñu yàgge leer ci réew mi tabarkalla tabarkalla xale yi yu góor yi yal na yàlla ñemeloo leen jamono te taxawu leen lu ñu song yal nañ ko daaneel fu yiwu nekk fu yiwu nekk yal na ko yàlla ommat indi teg ci seen loxo yal na leen jik jik ku taq ci yéen yàlla gu leen rëccu yàlla bu nu rëccu yàlla bu sag dëñ yàlla gu teraanga dëñ yàlla gu yiw dëñ yal na man gi yokk képp ku am soxla biir yaa ko xam yal na ko yàlla faj